ngërëmul sun borom de moo gën a màgg lépp lu ab jaam di wut te sëriñ Tuubaa doon ku mas a rëy yitte xam ne kon li gën a rëy lépp moom la war a dëgmal wut ko mu ne kon dara mënta doxa diggam ak ngërëmul yàlla nee na nag ci la jógee tëlatut dara booleetu kook dara waaye sun borom xamal ko ne ko nag man kat dee fut ñëw ci man ànd yow rek daal di koy tegtal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam looloo tax mu ne dallan yallaahu ala muhammadi wa xaadani muhammadin li samadi bi sallallahu alayhi wa sallam itam Sëriñ Tuubaa dafa jaar ci gaa yu baax yi liggéeyal leen ba agg ci yonent ba yonent bi ànd ak moom àggale ko ci seen borom tabaaraka wa taala ba mujj nag doonale ko mbiram mu doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yooyu yëpp ay jaar jaar la yoo xam ne bu ci nekk jaar na ca lam ca war a def lépp mu def ko ba mat sëkk moo tax ci ay mbindam yu njëkk mu daan wax ne mashaayixi sayidunal jilaani wa shaadaliyu maahu tijaani samay sëriñ mooy cheikh abdul xaadir jaylaani ak abul hasan shaadali yi ak cheikh ahmad tijaani waaye dem na ba laq seen gërëm bindal boppam ne radiya anni sibtuhul jilaani alayhi ridwanullazi alaani cheikh abdul xaadir jaylaani day gërëm na ma gërëm lu leer naññi radiya anni sibtuhu abul xasan alayhi ridwaanu yuqallidul xasan am naa ngërëmul abul xasan azazali radiya sibtuhu tijani alayhi ridwaanu am na ngërëmul cheikh ahmad tijan radiya anni xulafa al arbaa wa zurad al muqarrabin al gërëm nañ ma ak taabiina yi ñëpp làq naa seen ngërëm daal ci yonante sallallahu alayhi wa moo tax mu ne ku ma gërëmut it man kat du ma eh, am lu mu metti ndax sun borom gëma gërëm na ma ngërëm loo xam dootu dagg mukk man lam yakun ani yarda fal karim radiya ani yaridan lay mu daal dag jaayante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di laxasaayu nag daal ne ubayiul yawma rasul al mustafa bi xidmatin wa asalullah al wafa jaayante na ma ak yonent bi tey ci liggéeyal ko te maa ngi ñaan suñu borom jaayante gi ak liggéey bi may liggéey yonent bi ngir àgg ci suñu borom mu defal ma ci tawfiq te suñu borom defal na ko ci tawfiq ju mat sëkk ba mu àgg ci donn yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ana nan la ko doonee dañoo wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi nekkee kat moo doonoon ilimaani jullit ñi di généralu guerre bi di juge bi di attekat bi maanaam lépp rek fonction yëpp yonante bi moo ci jiitu woon jullit ñi ba noppi yor këram ni ko ñëpp yoree waaye Sëriñ Tuubaa itam bu ñu xoolee liggéeyam ak doxalinam bi mu nekkee ci kaw suuf da xam ne loolu ku doon nudd yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mënoo ko ndax buñ la waxee sëriñtuwaa Tuubaa ni mu daan jaxasoo ak nit ñi da nga naan xanaa moom nit ñi rek la nekkooloon buñ la waxee lettre yi mu daan bind nga naa xanaa moom bindi lettre rek la fi nekkee woon buñ la waxee xasida yi mu bind nga naa xanaa moom dundam gépp daraan bind buñ la waxee diggam ak tubaab bi nga ne xanaa moom dundam gépp tubaab yi la ko nekkaloon buñ la waxee ñim defar nga ne xanaa moom defar rek la fi nekkee woon buñ la waxee ay tombam nga ne xanaa moom daraan tomb rek loolu lépp nag lim doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko ko may ba noppi nag àgg ci boromam àggin woo xam ne nii moo bindal boppam ne ba lislaam tàmbalee ba tey de ku leen ne àgg na ca yàlla nii ma ca àggee ne leen ko waxoo uh, waxoo dëgg mundu badal islaami ila yawmina man qaala lahu wasala ila rabbihi kama wasaltu ilayhi fa qulu lahu kazabta <laughs> ba noppi itam loolu lépp yàqut dara ci digganteem ak waa këram ak digganteem ak mbokki boppam la ko ca war lépp mu di ko def kon loolu kiimtaan rek nangu kiimtaanuk suñu boroom rek mooy tax nga mën a nangul Serigne Touba ab liggéeyam ak lim fi def moo tax mu bindal boppam ne baana li kulli man lahu wilaaya kaw nii li rabbil alamina aaya képp ku amuk wilaaya de xam na ne man kaawteef la ci kaawteef yi suñu borom yi moo tax mu waxal boppam ne jaaral bari ajaban lil kaw nii maanaam mujj na doon kiimtaanul mbindeef yëpp suñu borom def na ko ko mhm. subhaana jaalani lil Mustafa mujisatan waliya jaar bi sifa nee na suñ def def na ma may mujisa may mujisatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam akramani bi kawni ujubatan minhu li kullil kawni <laughs> ujuba moom mënoo ko firee waaw ci ko ci mbindeef yëpp suñ borom def ko loolu am na bis ci mu yónni Seex Isaa ak gaal gu defi fekk gaal gi sax soriwu ko waaye dafa wax sëñ Issa mu jotliku ko sëñ Issa ku ne xam na itam ku bari woon Pastef la te it néewutoon kàttan waaye bi mu yëkkatee gaal gi ak ñaari loxoom da ko yëkkati yëkkati gaal gi yënguwut ndax ab diisaay sëriñ bi fi mu toog benn loxoom rek la tàllal daal di jàpp ci gaal gi yëkkati ko teg ko ci kanamam daal di muuñ sëñ Issa jenn ne ko ah lii de kiimtaan la mu ne ko Issa man sama lépp kiimtaan la <laughs> ne ko doon kiimaan mooy toog gi ma toog yéen naan dama ne ngeen naan xaa te loolu it dëgg la ndax koo xam ne nii kat waxuma la sax àgg ci suñu borom waaye dem na ba suñu borom nangul ko ne ko sama dëkkaale nga ndax bu njëkk daf daan wax ya rabbi yaa rabbi mu suñu borom ne ko del wax yaa jaari yow sama dëkkandoo bi moo tax mu ne jaawartullah bi kitaabihi ila duxuliya jannata <laughs> jaawartu bil furqaani rabbiyal muin malaktu nafsiya wa saxatulahin nga xam ne nii ci ak nekkam ci njaareem boo ko masaana wax dara mun la xaaral ma laaj ko négal ma laaj ko sama borom wala mun a sayyidina jibril nee na wala mun la négal ma laaj ko sama sang ba sallallahu alayhi wa sallam da ngay seet ku àggee noonu ci boromam ba di dëkkaaleem jaxasoog yonent bi noonu ni ma ko waxee woon démb mbiram mépp di mbiram yonent bi ba noppi mu mën a wàcc ba mën a jëflante nit ñi dangay xam ne loolu kaawteef la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 in uridu illa al islaaha mastatata ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu auzu billahi min asseytaani rajim bismillahi rahmani rahim